la ñëw teewal tey fii ma moom la ñëw teewal tey ci rassemblement bi message may lancé mooy leen kese la ñun ak ñoom benn la ñun di seen ennemi foog naa Macky Sall moo war nekk suñu ennemi ñoo bokk benn combat bu ñuy mëne mais waruñu ñëw fi sa deuxième fois ñu ñu koy def ñuy ñëw fii ñu ñuy tuutal di ñu jéem a minimiser te ñun ay jeunes lañ comme ñoom duñu bu ñu defee benn mun nañ def ñaar ragal luñ leen de mais am lu ñuy seet kim gëm ñoom nañ gëm ki ñu gëm ñun si li ne ñoom mënuñu see dindi fii ba ñun dañu leen fekk si nga ku ne tey fii nga tey mais na leen leer ne bi élection bi ñun ñooy borom mu neexalee bu naqalee Khalifa moo fi moom. jël ma jël ma. Khalifa rek a ñu ñor. suñu réew mi Khalifa doy nañu ci. gis nañ qualité am te xam dégg nga dama ni ñun ndaw ñi dañuy and dolel khalifa khalifa rek lañuy top khalifa rek lañuy top topp rek lañuy top ah. mu dem bàyyi ñu ak sunu jàmm. na dem bàyyi ñu ak sunu jàmm parce que lii yëpp moom moo ko waa daal ñun loolu rek la ñaan na dem moom bàyyi ñoo ak jàmm ak salaam loolu rek la ñaan merci. Ah? bi xuloo bee xeex beek yëpp dara jaru ko ñun kenn moo ñu tax a jóg muy Macky sal mu dem rek ñun ñu nekk suñu jaam rek la ñu bëgg na jeunesse ànd doon bokk ndey ak baay loolu daal rek la ñu bëgg. yaa ko doon wax léegi moom ñu ci opposition te ñun kenn fayuñu xalifa bi ñuy xale ba tey la ñu bëgg xalifa Sall waaye ñoom tout le temps bu ñu gisee euh, ay ni ko xalifa ñëw rek il faut ñu leen ci coow te ñun tey jii tey suñu woowee tey ci coow ñun dañ ñun dañ lay fekk si tey si coow ndax ëpp nañu coow kon donc ñoom nañu arrêté seen lii ñun Khalifa ñun ñun Macky Sall moo waral suñu xeex yëpp kon donc ñoom nañu arrêté kon donc seen lii nii ñuy def amul benn sens ñun moom na fi Macky Sall jóge rek moom la ñu bëgg Macky lan bëgg. avril ce sera fini muy bëgg répondre au ministre de l'intérieur Sidiki Kaba Sidiki Kaba il ne paye rien pour attendre. Sidiki Kaba il ne comprend pas Sidiki ne veut pas koy il wax les deux avril ce la fin du mandat de son patron Et nom. quitter le pays arrêtez arrêtez les jeux de pierre s'il vous plaît arrêtez les jeux de pierre tout ça. voilà donc on des films il Taxawal taxawal. waa APR la waa APR la. waa APR la waa APR la. mais ñoom it dañuy topp leen topp leen seen ndey ñoo xam ne léegi dañuy bàyyi la ngeen ñu bëgg a yàq affaire

la preuve mooy boo xoolee doo leen gis dem nañ seen yoon. jamono dem nañ seen yoon. waaw le problème la cest la manœuvre mooy ñoom li ñu bëgg mooy saboter la manifestation de telle sorte bëggee autorisation ah buñ ci na ko wala yoon bañal nañu ko wa illaa ñu ñëw wan nañu que

ce sont des gens des gens louches. Ils ont une bonne gisee xam manifestants quand même on était là. depuis ont ans une ñi une dame se bu gaz. Ils ont préparé le coup, ils ont, réussi. Mais il faut que le monde et le Sénégal sachent que n'est pas, on n'est pas des gens violents, on n'est pas des gens dangereux, on nous sommes des gens civilisés. On est venus manifester calmement dans la paix. On a fait trois manifestations dans ces derniers jours. Puis, moi, c'est un problème. Avant, on avait pris nos devants. Mais là, am na loo xam ne mënoo ko mënoo ko téye mbooloo tas ko dafa yomb. 16 heures lañ tas mbooloo dafa yomb. on a pris tout tout toutes nos précautions mais tas mbooloo dafa yomb. ay matuwaay li ñuy ñaan mooy. li ñuy ñaan mooy les forces de l'ordre pour ñu gën a mën a encadrer ah, en fait barrage yi. parce que euh, fii yomb na tuuti tuuti na lu ko encadré yomb na ëllëg ñu ñaan euh, échange boobu ñun ak force d'ordre yi ñu gën ñu mën a jàppale ci loolu parce que ñun suñu yittee nekkul ñëw fii di indi problème wala ñu ñëw fii ñu ñëw fii di sànnante xeer ñëw fii pour suñu pour suñu manifestation ñëpp yi ci jàmm ak salaam loolu moo fii

try. We can try. Hello? Wow. waaw situation bi daal vraiment. ñu ngi ñaawlu la. nee na taxalee ñu taxalee waa xalifa lañ. voilà bi bii ma deuxième fois ñu koy def. voilà bii passé ma lañ ma woon fii fi ma taxawoon dañ ma fekk ñu ne ma jógee fa. voilà ma demee fii fii fii. du du du du gàlle kenn. voilà fekk amu fi place. ku ne ku ne gis-gisee espace bu mën taxaw ngeen taxaw. ma lànk ñëw di ma attaqué di ma buub. finalement gars yi ñoo sauvé ma. voilà mu passé. tey aussi bi ma gisee ñëw di aussi ñi mun dañ ñëwee daa xam ne gars tey moom mënut a ñàkk voilà te loolu la ñuy def bu ko imposé Khalifa par force Khalifa nit ñi xanaa moom moom may kan léegi ma ne ma ne moom dafa tekkul dara si krayo loolu mooy problème parce que ñoom ñoom ñaar ñoo ñu génne si benn mbooloo. leader la politicien ak groupe la ak discours ak comportement ak jikko. Aliou naa passé naa passé naa passé naa passé loolu amu ko fii daal ñëpp xam nañ ñoom la. waaye jël na reculer ñëw fi di sebelo portel bat la du góor bu doon góor day génne mooy ndeyu meer bi kenn du ndeyam mu yónnee ba mooy ndeyu meeru Dakar du génn bu yónnee. góor jigéen la. moom mandat bu mu am ni bu soobee yàlla fii moom tekkiwul dara si politique ku mu ñu bañ a gis kooku mooy président Sonko mais dañuy seen xol mooy bon mais dañ mënuñ dara réew mi buñ ko moom mooy gagné par force incha allah rabbi waaw yàlla moo ko may du ñoom kon ñu yàlla mooy nag yàlla du may bopp rek waaw dañuy sonal tekkiwul dara si politique nit ñi bàyyi nañ ko kon nag gom yàlla xam ni président Sonko moo fi léegi man ak ay jamono sama sama yi doom na sama combat la libération des zones d'otages politique loolu rek laay ñaan donc on doit faire une marche pacifique ñoom bu fekkee indi nañu violent jarul ñu lañu toog si violent nañ dem toog kër ga ñaan yàlla def tout pour ñu doon doon détenu yi mën a génn loolu nag laa ne ni ñaan avec ma sama papier bu Sonko mooy wax ak yéen suñu pays parce que ay ndaw lañ yónni ñu ñëw xooma ay waa Khalifa Sall lañ xooma xooma naa xooma naa bokk rek xooma xooma nañu bitt na rek mais dafa rafetul de ay ay ay ay ñëw fii trois partis ci benn terrain manifestation moo nañ ko def comme bi amoon keroog Sacré-Cœur ñu def li ñuy def dem ñibbi 30 minutes moo desoon sa affaire yi 30 minutes moo ci desoon ñu dem ñibbi envoyé de vingt minutes ñu ñëw di tas affaire merci beaucoup maa

tey Barthélémy Dias nit doo ko voté pour mu nekk maire Dakar. ñu kanam la ñu ñëwee suñu si biir manifestation yi. ba xam nañ leer ne seen seen intention nañ ko bu baax ñun si dëkk bi leen dëkk. mais ni ngeen ko xamee ne ñoom la ñoom suñu kanam la ñu ñëwee. dugg si biir ki ma taxawaloon ki ma taxawaloon maa ngi ko naan ñii dañoo ñëw pour yàq manifestation bi. non lu leer lañ si am te fu ñu woo ñu wuy ko. merci merci beaucoup merci. mais eh, grand mais ah eh, grand daa ñu jox ay numéro bi man dama leen jël 40 minutes quoi ma jël na ko bala ma jox ay numéro ma jox. maa ngi lay sori. alhamdulilah sant bu baax en tout cas li xew nii dañ koy naqar ndax wax dëgg yàlla ay kilifa ñoo fi daje ay responsable du benn parti moo fi daje bàyyi beneen parti du benn leader bàyyi beneen leader société civile journaliste yi. politique yi dégg nga couche euh, société bi yëpp ñoo fi dajee lenn rek mooy suñu xeex mooy fexe ba euh, Macky Sall organiser élection yi balaa le 2 avril amuñu beneen yitte bu dul loolu ñu ñu ngi naan après le 2 avril après le 2 avril ñun benn yitte la ñu am mooy na organiser balaa le 2 avril en tout cas ci loolu la ñu nekk ñu ngi wax waa kër Khalifa wala waa kër Nangam en tout cas leer nu ma li xew mooy bi représentant xalifa bi waxee ba pare ci la loolu xew donc nan la demee nag xaw ma ko mais li ma jàpp mooy responsabilité bi gën a mag mooy force de l'ordre bi manifestation soo ko autorisé fu mel nii Grand Yoff te fii rëyul torop pour man waroon nañ ko encadré ba nga xam ne yu mel nii mën na ñàkk te bu amee dinañ ko mën a faj ci nu mu gën a gaawee. dana jàpp ne encadrement. encadrement man gis force de l'ordre gisuma ba léegi ko fas lool après mu def ay gaay naat donc yi ñoo fa waroon fees dell di xool lan moo xew te ba léegi nit yi rek nga fi gis dañuy toog léegi nag ay xeer ñoo jógee fële nit ñi naan nga bi muy xew man maa ngi taxaw ci kaw podium bi taxaw ak maam bi ram ñuy waxtaan ak ñeneen ñeneen xeer yi mënoon nañu daal ñun ñu ay ay pancarte lañu mujj a Papa dañ dañ door sama kanam man déggoo ma ne maa nekkoon du yuux mu yëg Sonko ñu door pompe bi ñu door pompe bi ñu daw affaire yi jeex ñi dem ñëwaat taxaw laaluñ leen jëlewuñ leen ñu dikk-dikk seen waa ji pare xom ko ñu leen yóbboo mu waxee pare yeneen beneen mbooloo ñëw bu ñëwee ci ginnaaw ñu commencé dikk-dikk rek kenn door bu ban commencé duñu door duñu door دول ay pompe ay doomu xaraam la de xamoon naa ay ñoom ak saa